Mour maa ngi lay delloo ziar. waaw nuyuwul euh, ak senegaal yi ñu commencé naa leen maa ngi leen di sant di leen gërëm rawatina sama gars yi nga xamante ni fii laa leen fekk muy borom place bi maa ngi koy sant di ko gërëm parce que fii Mermoz la. place boo xamante ne képp koo xamante ni bëgg nga féexlu rek wala nga def sport boo ñëwee fii place bu am solo la maa ngi nuyu Sénégal gépp di leen siyaar di leen wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te feebar bi jóge fi. moom bàyyi bëri. ma bëri. ba léegi. waaw maa ngi si làmb ba léegi. sa par ñaata waaw su ma ko doon xayma nag war na dem ay vingt ay vingt quelque ah. waaw. waaw man xam nga man yàlla dafa dogal man bi ma duggee si làmb ji yàlla dafa ma suturaal ma teel a bëre boo xoolee ñu ma doon bëreel ñëpp ñoom samay mag lañu bokk nu même sénération ñoom ñoo ma jiitu woon si wàllu aas loolu moo taxoon ñoo ñu ma doon bëreel ñëpp amul kenn koo xamante ni sama moroom la ci ba tax na ci bëri naa ceeg ñu bari ñoo xamante nii tey vraiment ay ndaanaan lañ si làmb waaw. nga am ñetti ko ñu bëri ñu am ñaata victoire ko vingt waaw vingt combat waaw victoire dama ko à peu près noonu rek mais xam naa ne ëpp na loolu sax mais euh, vingt mais dama ko à peu près noonu rek mais xam naa ne ëpp na loolu parce que man chaque saison gën gaa néew daanaa bëri trois combats léegi la làmb ji ñëw nii saturé rek am nu mu demee mais man moom wax dëgg fa yàlla dama daan bëre bu baax a baax a baax waaw même ba ci am na si année boo xamante ni sax trois grands combats bëri naa ko ci laa daan ama seen senior Sagwar ak euh, kii Ousmane Diop waaw ci benn saison bi waaw. man bëri na ma ak euh, kii mm, euh, kii. waaw waaw ak ama seen senior. Alioune Seye mësuñu waaw Alioune Seye non kii. non kii euh, kii Eumeu Sène Senior. Eumeu Sène waaw. waaw ak Ousmane Diop. ak Sagwar. ak booy bi nekk si booy ñaar damay fàtte euh, euh, ci turam waay. kii man ñi ma daan. kii moo ma daan Xaadim Sarr moo ma daan. ak Malal. ak Sri Jules Baldé. waaw daan na ma waaw. waaw Père Kayda nag bëriwul. Seexu Jën la na non Seexu Jën bëri nañu Tëngéej. waaw bëri nañu Tëngéej. Jules Baldé bëri nañu. moom a ma daan. moo ma daan waaw. non xam nga Jules euh, wax dëgg fa yàlla bi ñuy bëree. boobu euh, dama bëggoon génn. mais ci ni ma ko jëleet aussi xam nga ko luy bëre yow yaay def erreur ma ko téye xam naa ne man maa ko ëpp doole mm-hmm. man ma ko faqat pour droité ko après mu bàyyi ma ak yaram bi li ma financé ci moom dafa fekk doole boobu nekkul kon ci moom après sama poids yóbbu ma mu dóor aas mu romb ma te ci sama bëre li ma gën a mën a nag ci sama bëre ci loolu loolu laa daanoo mooy dama ko faq pour droité ko après far doole bi ma yaakaaroon ne moo nekk si moom nekku ci après ma ànd ak action bi voilà mu ñëw sama kaw. waaw loolu moom ma a ma tartloo combat boobu quoi waaw. Mm-hmm. waaw maa ngi entré gis nga fi nga ma fekk nii saison bi instant nii mën nañ ne jàppandeegul ci wàllu mu tijji pour gars yi bëre mais gis nga fi nga ma fekk nii si place bi maa ngi fekk sama gars yi di football di entraîner def yëpp tout ça su ma duggee wara a football ma football su ma footballul maa ngi nekk si continuer samay entraînement waaw di daas fanaan rek ndax ren day bette man moom lépp la ma mën naa nit mën a waxal ba mu des entraînement mësuma ñëw ci combat ñàkk indi forme Ah. Eh, eh, waaw xam nga yu nu may wax mais xam nga combat moom tànk que taxawagul rek mënoo ci sukkandiku quoi mais sama manager muy bëgg fàllu wax dëgg yàlla chaque semaine bu ne mag ma naan combat yi ñu ngi koy taxawal combat yi ñu ngi koy taxawal ba ci am na galan boo xamante nii sax mag ma koy wax mais comme yàlla dogal na waaw taxawagul moom wax dëgg fa yàlla ñun ñoo ngi jël lépp rek suñuy loxo taalal ko yàlla suñu borom toog di xaar te xam ne lu mu nu wërsëgalee rek loolu mooy li gën si ñun quoi. waaw. waaw xam nga comme instant nii moom gars yi dañ koy rimbundaat ci suuf taxawagul moom boo cité ay mbër dañuy yaakaar na yow jóg nga bu yàgg parce que gars yi xam nga ñoom seen seen affaire yenn saa yi sax ñu ne diggante diw ak diw mais bu ci mbër bi waxee rek dafa yaakaar ne daf ko njëkk a jóg wala beneen affaire mais xam naa ne. Euh, comme sa sa sa situation actuellement da nga ko niróo si mhm. parce que Balla Diouf nee na dañu waaw. Euh, Batika neen day ñëwaat. waaw. Euh, Saloum Saloum neen day ñëwaat. waaw ñëpp ñooñu intéressé nañu. non Saloum ñoo bokk benn écrit man ak moom bi mu jógee si Birahim ci man la ñëw. Saloum Saloum waaw. ñu écrit ñu waaw. waaw na kenn de waaw. waaw léegi ñooñu ñoo wax ci ñoom. waaw xam nga gars yi dañuy jékki-jékki nekk si benn affaire rek wala ñu nekk ci yenn situation yi ñu xaw a raar wala ñuy am problème mu gëj a bëre mais ñi nga tudd fii ñëpp amul kenn koo xamante ni aasam tax na moom mu yàccaar wala aasam na mu bàyyi làmb ji ñi ngi fi ñëpp ay xale lañu. ay xale lañu suñu góor góorgóorloo liggéeyaat gëm seen bopp ñëwaat ci làmb ji mën nañu jëlaat seen place waaw. xam nga sport nag moo nekk loo xamante nii buñ la ci teelee dégg rek fan lay yóbbu ak fa ngay tolloo du nekk benn. du nekk benn gis nga sportif bu demee ba santaretul li mu mënoon wala mënatul ci li mu mënoon mënatu ci dara bala ko kenn wax bàyyi li mooy njëkk a bàyyil boppam waaw loolu daf ci am quoi xam nga bu njëkk làmb ji li ko gën a rey bu njëkk dañ daan xool ndaanaan ñu di leen boole chaque dimanche amateurs yi supporters yi ñëpp kontaan mais léegi làmb ni muy doxe ku ma am ndey ku ma amul ndey dañuy boole ñaar ñoo xam ne doo gis ko jàpp tànk doo gis ko piris doo gis ko lali doo gis ko coxabal doo gis ko wër ndombo doo gis ko def benn action boo xamante ne mën nga ne bëre feeñ na ci loolu moo gën a sooxeel làmb ji ku ma am ndey ji ak ku ma amul ndey ji mais bu njëkk dañ daan xool ndaanaan yi man chaque saison dama daan bëre bëre bëre bëre ba man sax ci sama wàll bopp damay mujj ma ne man sonn naa parce que bu njëkk boobu gars yi ndaanaan yi lañ doon seet. bërëkat yi lañ daan seet. bu njëkk a mbër yi dañ daan xool mbër yi nga xamante ni ñoo gën a nekk euh, ndaanaan ñu sepp leen di leen yóbbu équipe nationale bu njëkk boo jaarul équipe nationale rek mën na ne yow confirmé woo dara ci sa ndaanaan. jaar naa équipe nationale. équipe nationale mbër bu bu ne jaar na mbapat te jaarul équipe nationale rek sa mbapat des na mais boo nekkee roi de saaraan mbapat far fos gars yi jël la yóbbu la yóbbu la équipe nationale nga jaar foofu waaw man sama équipe parce que boo xoolee ay joolaa rek lan fa fekk mais bala 3 bala 3 te mu doon bëre ak Tafa Gueye numéro 2 ñooñu ak ñoom Malalin ak ñoom euh, yeneen séeréer yoo xam ne et cetera fàtte naa ne sax laal fekkante ak ñoom même Yékini Yékini boobu fekkante naa moom équipe nationale waaw euh, Touba bu Dior ndemtu yàlla si sam papa yàlla na ko yàlla yërëm boobu bu ñu nekkee équipe nationale boobu man maa ngi nekk booy bu ndaw di bëri ay mbapat nii euh, bu muy préparé maa nga seen combat bu mujj bi bu équipe nationale la ñëw pour préparer ko foofu waaw yooyu yëpp mais boobu booy bu ndaw laa ko waa affaire yooyu noonu sama jom moo ma yóbbu woon foofu waaw ñuy bokk équipe bu benn boo xamante ni ku am personnalité ci boppam billaay walaay moom moo ko sonaloon moo daan jóge sàmburam dem foofu sonal ko sonal ko mais li ma mën a seede ci moom wax dëgg fa yàlla nit ko juleeti la waxtu du ko raw fu heure bi jotaawoon sol na jëlaabeem yor kurusam julli waxtu bu juróom du ko raw loolu moom mën naa ko seedeel ci moom wax dëgg fa yàlla uufan nanu di wax ak ñun ci loo xamante ni lu ñu jëmale kanam la mën naa ko seede ci ci moom waaw. côté gi nag côté côté entraînement bi côté xam-xam bëri beeg bi loolu loolu Yékini waaw Yékini nag yàlla dogal na wax dëgg fa yàlla euh, équipe nationale rek la ñu mas a tase pour am temps pour waxtaan ak kii même xam naa ne affaire bi su ko seetaanee wala mu déglu ko sax xam naa ne ci li may wax ne ci lay mën a réparer waat parce que man boobu man xale laa boobu booy laa moom peut-être mën na ko fàtte mais xaj na su ma ko waxee loolu sax xelam mën na dellu siwaat pour mu xam li ma koy wax mais beneen bi école asalaar. Euh, directeur bi sama xarit la moom day ñëw foofu di ko seet si moom bu nekkee roi des arènes mais su ñëwaa woon foofu après day ñëw gaare otoom dugg gis ko wala mu taxaw foofu ñu wax li ñuy wax après moom mu demaat mais équipe nationale rek la ñu mës a toog nii waxtaan wala ñu bokk entraînement mais à part bu dul loolu moom mosuñu gisee mosuñu toog waaw. bokkoon ak si biir équipe nationale wala ngeen daa ngeen contact parce que boobu vraiment Yékini toll na foo xamante ni euh, man ma ñëwoon doon tase ak moom ñuy bëre mu may jàngal avec plaisir quoi avec waaw wax dëgg fa yàlla maa ngi doon sentir ci moom ndaanaanam mën a bëreem lépp daana na ma ci benn action après ñëw daanaat ma si mën ma lii du yoon ma ne ko man maa ngi gis feneen par mais dama si mënul dara parce que wax dëgg fa yàlla moom grand ndaanaan nga si wàllu bëre jamono yi maa ngi nekk xale bu ndaw di bëre mbapat di bëre ay petit combat yi nii yu ndaw te moom boobu. mais Tapha Gueye numéro bi nekk équipe nationale. Oh, bu nu daan daw nii day ñëw nii rek yëkkati rythme bi. ñu ne ko Tapha ñun gaan ñun yow ak yow lese nga ñun luur lañu duñ tëbba tëbba ndib ñëw di finance zone bopp dañuy daw benn 10 minutes wala benn 15 minutes ba tàng soog a yokk mais moom day ñëw përti përti përti përti përti nii rek ñu daw. xam nga moo daal sonal foofu dafa lakkle woon quoi mais équipe nationale vraiment moo ko neexaloon parce que da nga daan son sax mu ñëw dindi la sa stress te loolu dafa baax ci sport. waaw mu nekk grand bu aussi it vraiment wàcce woon na boppam dinu jox ci xam-xamam dinu yëpp. parce que man may nekk xale ñu may yokk soog a écri indi écri face ci plan yi teewoon làmb ji moog Djily mbay ci leen bokk boobu ma nekkoon xale bu ndaw Djily Mbaye dafa euh, Gueye numéro 2 euh, Tess man ñooñu vraiment man boobu tout tànk laa nekkoon si ñoom ñu teewoon làmb ji chaque dimanche ñu bëre woon chaque dimanche ñu bëre woon vraiment boobu man euh, tout tànk laa ci seen ginnaaw nekkoon seen rek doon topp ci ñoom nekkoon ci ñoom di vraiment di jàng. mais garab ci kaw lay fekkante dem naa ba nga xamante ni position bi ñu toll woon toll naa fa ba raw leen mënatuma daan parce que ñoom boobu xam nga. voilà doole bi ñëw na xam-xam bi ñëw na vraiment xam nga yaa ma gën a xam parce que sport noonu la. léegi léegi ñu ah, hmm? euh, ah. bëri ak moom. parce que man maay mbër bi nga xamante ne ku ma fi ëpp combat. ëppoo ma combat ku ma fi ëppal victoire ëppoo victoire te ba may bëre ba léegi nii masuma teg la ñaari défaite mosuma teg la ñaari défaite mosuma def ñaari année année balaas waaw feebar bi ni mu demee nii moo tax daaw ma def année balaas mais man wax dëgg fa yàlla lu mu xat xat xat xat xat mini mini mini benn combat dinaa ko laal toogaat xaar. non. làmb ji képp ku ci nekk rek samp yoo nga mbër nga mais wax dëgg fa yàlla Batika làmb boolewuma ak moom parce que am na ñoo xamante ne nii ñu ngi ciy làmb ji gën ko compétir te ñu ngi wax samay combat ak ñoom muy réglé muy des ci man parce que tey man wax dëgg fa yàlla képp kuy takk ngem nekk si làmb ji rek xeebuma la te wax dëgg si yàlla tuutaluma la mais kenn ku ne am nga droit wax sa choix mais wax dëgg fa yàlla su ma sañoon ah fi ma teg sama bët. gars yi yàlla boole ma ak ñooñu man ma bëri ak ñoom parce que wax dëgg fa yàlla euh, chaque saison ñu di la jox ay booy rek ngay lem par kenn par kenn par kenn par kenn euh, kii euh, booyu kii bi brise de mer. brise de mer laa jël ay minutes laa ko daan. non brise de mer moom laa daan daaw rek moo si topp daaw laa bëriwul. nee naa la xale yi man man bañu ma xale boo xamante ne ni liggéey nga ba nit ñi di la coow. man yooyu sax moo ma gënal combat yi nekk ci kaw parce que combat boobu mooy ëpp xaalis mooy ëpp bës. léegi léegi bëriwul ku bëriwul ba ci daal léegi sama booy bi sama booy bi écrit bawal bi euh, tracé ko xaw ma daaw xaw ma daaw jéeg. Ah. mooy booyu bawal boobu noonu te nekk nekkoon écrit bawal bawal mooy écrit bi tafa bawal mbooloo kii écrit Cheikh ba xaw ma non non mooy écrit bi Tapha njëkkoon a nekk te jóge fa. waaw booy kéwél booy kéwél la xaw ma xaw ma kii. wala uh, waaw moo ko duma duma yu métti daan ko bu yàggul. Ah, waaw non man ñoo non xam nga man wax dëgg fa yàlla. Euh, mu bëri mu néew maa ngi sant yàlla bu baax ci làmb làmb aw ma ci loolu gaañ mais maa ngi ciy bu baax a baax a parce que yàlla may na ma ci ay connaissance yoo xamante ne nii tey bu doon kon làmb du ma xamante ak ñooñu. waaw kon wax dëgg si yàlla man su ma tolootee naan kii laa bëgg a bëreel wala kii laa bëgg a bëreel wax dëgg fu yàlla te euh, man kenn xaw ma ma taxaw si télé wala rajo naan jox ma diw jox ma diw jox ma diw mais am na ay mbër yoo xamante nii boo ko cité mu yenu maanaa wala mu nekk ci sama xel mën naa ne ñii mën na maa bëri ak ñoom waaw mais waaw mais wax dëgg fa yàlla man li ma def si làmb ak fi ma toll si làmb ah, kenn ëpp ma fi ay victoire du ma def ñaari yoon année balance ah. Issa Pouye Issa euh, sunu làmb boole mën na bëre. Ah. waaw mën nañu bëre. parce que waaw parce que wax dëgg fa yàlla li mu def si làmb ku bañ a moom da ko ragal mais def na si làmb lu ne tolof tolof nag du ñàkk tolof tolof du ñàkk amul ku nekk si làmb ji te guddi yi mu tollu tollu woo fa. non bala bala mënuñu bëre. Balla mënuñu bëre. ah yow kay ki mu bëgg bëre sànq wax nga ko man kay koo wax koo xamante nii man na maa bëre ak moom man la mën na ma bëre ak kooku. Issa Pouye nga wax waaw. Issa Pouye mën na maa bëre ak moom. foo foo foo fekk nii si biir ci géej. sportif yëpp samedi dimanche duñ ko entraîné man maa ngi nii si place bi nga ma fekk may entraîné te uma combat. Issa bu ma joxee avance sam. ma jël ko. waaw.